Je prends le E pour écrire avec le sourire. Le C pour compter sur mes doigts sans tricher. Je prends le O d'oublier. Ça peut arriver, je prends le L des leçons après la récréation. On vous laisse le E. C'est l'horizon. Le H de l'histoire et le A pour la France. Tu vas de N pour les notes, je révise avec mon pote dans le de de voir. Le E peut m'encourager à progresser dans le M de ce monde des écoliers à la ronde. Je prends le B pour le bleu et bricoler un peu. J'ai des ailes dans mes livres. Essayez de me suivre et pour la mbokk auditeurs yi seetaan euh, Safina TV ci YouTube bi di ko déglu ci Safina FM 98 point 2 ñu ñëw tey ci seen euh, émission Safi éducation Safi éducation nag euh, di yëngu ci lépp loo xamante ne day laal éducation tey nag macha allah ci ndorteeru bi la émission ñu ñëw fii ci institut El Hadj Omar Foutiyou Tall nekk ci Scat Urbam ñuy war a xool nag li nga xamante ne moom mooy enseignement bi nga xamante ne dañ ko fiy defam am na nag préscolaire ba CM2. ñu ubbee nag li nga xamante ne mooy tout tànk yi ñu waxtaan ak ñoom xool naka jàngale bi naka lay demee eh, incha allahu taala topp leen ba ñu dem. aujourd'hui nag da ngeen am ay gan waa télé ak waa rajo Safina TV ñoo ñëw seet si leen xool naka ngeen di jàngee xool maîtresse wala yaa Seyda moom tamit naka lay tëniree classe am ñëw seetaan si leen xool ni ngeen di jàngee eh, yaa Seyda ñu nuyu la. ñu dalal euh, jàmm ci Safina FM 98.2 dalal la ci Safina TV euh, bi daw ci YouTube bi macha allah ñaan yàlla léegi léegi mu daw ci grand écran yi incha allah taala euh, ñu remercier leen ci dalal bi ngeen ñu dalal fii ci institut El Hadji Omar Foutiyou Tall ci njiitalu directeur bi tonton Alioune Ndiaye ak collaboration oustaz Doudou macha allah tey nag ñu ñëw xool naka ngeen di tenir classe naka ngeen di yore élèves yi naka ngeen di jàngale ñu xaw a sob tuuti ñu di jënd ci merci beaucoup euh, asalaamaaleykum yaa atfaal ijlisu qumu ijlisu shabbik shawaidakum ok euh, soo leen demee seen kër ah soo leen ñibbee seen kër seen yaay tegal leen añ walla ree walla ndékki balaa ngeen di lekk daa am loo leen di wax wala da ngeen ñëw rek lekk ah c'est sûr ko daa am loo leen di wax ok léegi la ngeen di wax lek ba fa nan sen ndox so len paré daa lo len di wax wala da ngeen ñëw lek lek nan ka daa lo len di wax wala ah la ngeen di wax Okay, شكرا. اسمي عبد العزيز. ما يقال قبل الأكل؟ ما يقال قبل أكله اللهم يا البارح لنا لكن فيما رزقتنا سلن وسكر وكنا عذاب النار dégg musal ci safara bismillah alhamdulillahi lazi أقامني وصحاني ما يقال قبل الأكل؟ اللهم يا الله بارك لنا فاكين فيما رزقتنا تنمو وسق وقتنا أصابنا تنمو سمري صفا بسم الله سولك بابا دام لر لنجي بابا الحمد لله الذي أطعمني وسخاني شكرا تاكلين balaa ngay lekk daa am looy wax walla dam ne wax wax allahumma mhm. yow yàlla barik lana barkeel fii ma razaqana li ñu wakkina azabana te nu musul ci safara bismillah ok léegi soo lekkee ba pare ah am looy wax waaw lan ngay wax ak amani wa saxaani. léegi soo lekkee ba pare barik lana bakkil fi ma razaqtana si li ñu wakina azaban waaw macha allah di jaajëfal kii di yaa Seyda machallah ñu fekk ko ci classe am fii ci institut El Hadj Omar euh, mu tenir classe bi machallah ñu gis ni mu defee animation ni mu poser question xale yi nga xamante ne ñoom lay jàngal ñu tontu euh, si loolu dama naan. Euh, yan critère euh, le le le le le jàngalekat war a am parce que nous pouvons nañu ne yor ay xale di leen toppatoo di di tenir une classe nekkul loo xamante ne lu yomb la euh, su ma amoon lu ma lay wax yaa euh, yan critère le nit ki nga xamante ne yor ay xale di nekk ak la war mel pour mën tenir une classe parce que seetlu nañu ni nous avons une classe très disciplinée ba nous ñëwee nuyu nañu dal nañu amul chambal chamal amul dara.

xool les besoins quoi ñoom d'après ñoom noo la mën a comprendre dañuy xool d'après tout ndax ñoom est-ce que suñu ñëwee su ma ñëwee lekk jox leen coup bi noonu dañ comprendre ou bien je dois faire jox leen di leen neexal parfois et ainsi de suite di leen neexal pour ñu mun a jàng parce que soo leen neexalee moom soo ko neexalee rek day jàng donc noonu la ñuy def parfois aussi di jouer ak ñoom pour ñu bàyyi xel tuuti si li ñuy jàng en fait juste ça. donc dafa nekk ay yoo xamante ne yéen yéen a koy am ci yéen. bu ko ngeen mën koo jox xale yi xale leen delloo. en partie bi nga xam ah, macha allah ni nga tëniree rek classe bi euh, ni ñu koy wax rek euh, mbokk auditeurs yeeg euh, internautes yi nga xam ne ñoo ñuy suivre dafay doon ay série de reportage yoo nga xam ne dañu koy def dem ci école yi. xool naka la ñuy toogee naka la ñuy toppatoowee ndongo yi nga xamante ne ñoom lañ yor école bi nag ñuy ubbee mu nekk institut El Hadj nekk école franco arabe ni ñuy defee ci arabe bi noonu la ñu koy defee ci français bi incha allahu taala euh, ñu dox euh, dañuy dem tey préscolaire bi la ñu euh, grande section bi nag la ñu tàmbalee dañuy def petite section ñu def euh, moyenne section inshallah taala ci lolu mbokk yi ñu joxante de l'autre côté ñu remercier suñu technicien euh, Samba si euh, joxanteeg mbokk internautes dig dajé ak mbokk auditeurs Safina FM ci 98.2, ci ak toujours série de reportages yi ñu def ci Safi éducation inshallah taala